bismillahi rahmaani wa sallallahu taala ala sayidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginnaaw bi ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu sëriñ Kokki alxaaji Mouhamadou Xabaan Diop ak ci turu waa Kokki yépp ñu ñëw teewal ko fii di nuyu madame la ministre soxna Mariama Sarr di la dalal jàmm fii ci Kokki di la jox sa wàccuwaay di la nuyu yow ak sa délégation bi nga àndal yëpp di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Louga di nuyu monsieur le préfet du département di nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Koki di nuyu monsieur le président conseil départemental di nuyu autorités yi fi teew yëpp kenn ku nekk turam ak santam ak mbooloo mépp ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu monsieur le maire de la commune de Koki di nuyu Adja Kouma Ndiaye vice présidente conseil économique social et environnemental di nuyu honorable yi fi teew yëpp di nuyu monsieur Sele Ndiaye chargé de mission à la primature di nuyu maire yi fi teew yëpp ak autorité yëpp kenn ku nekk turam ak santam nuyu nañ la ki turu Serigne Koog Alhaji Mouhamadou Xabaan Diop mbooloo mépp ñu ngi leen ziar di nuyu Serigne Makhtar Naar loo mi nga xam ne tey moo ñu fi moo tax ñu dajee fi ñu ngi koy nuyu ki turu Serigne Koog di ko ziar di ko jox nuyoo waa Koog yëpp. di seedeel mbooloo mi ne sëriñ Maxtaar Naar Lo ñun waa Kokki mu doy ñu ci moom seede ndax fi mu ñu toll ak ni ñu mel ak moom ñu ngi koy seedeel mbooloo mépp ne sëriñ Maxtaar mi ngi yor daara ji ci anam bu gën a sell di jàppale waa dëkk bi ci lu daara ji am lépp lu daara ji am sëriñ Maxtaar bokk na ko ak waa dëkk bi loolu ñu ngi koy seedeel mbooloo mépp sëriñ Maxtaar ñun waa Kokki mënuñu koo fay mënuñoo seede ci moom ndax fi mu ñu toll la ak ni mu ñu yore loolu ñu ngi koy seedeel mbooloo sëriñ Maxtaar ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi ba liggéey bi fa mu bëgg egg mu egg fa loolu la ñuy seedal sëñ Maxtaar di nuyu son excellence président de la république di yónnee madame la ministre nuyoo ci président de la république di ko nuyu di ko ziar ki turu waa kokki yëpp ak ki turu sëriñ kokki di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam ak it lii nga xam ne def na ko ci dëkk bi ñu ngi koy seedal mbooloo mi ki turu waa kokki ak ki turu ñëpp ne président de la république li ko war ci daara ji mi ngi koy def barki dem mooy Njaay donc la ñu fi inauguré benn bâtiment boo xam toll na ci valeur bu cent trente millions mu def ko ci daara ji te ñun li ñu xam ci histoire depuis indépendance ba léegi mësuñu gis benn chef de daa def tabax fi ab brique moom nag tabax na bâtiment boo xam ne toll na ci valeur bu cent trente millions mu tabaxal ko daara ji kon loolu defalu ko daara ji Sénégal la ko defal defal ko sous région bi ndax daara ji mu ko defal région bi quatorze régions yëpp seen ay doom ñi ngi fi ci daara ji kon loolu Sénégal la ko defal sous région bi ngi fi kon li mu fi région bi la ko defal loolu jaadu na bu ko defee bu mbooloo mépp teewee fii ñu leeral leen loolu ngeen yóbbaale ko ci tur waa kokki ñun waa kokki sant nañ président de la république ci li nga xam ne mi ngi ko def ci daara ji loolu sedd na suñu xol ñu ngi koy ñaan nag mu gën a dolli ndax daara ji lim bi yokk na dem na ba ci 3960 étudiants yi fi nekk di fi jànge ñoo ne noonu seen lépp sëriñ bi la war joxewuñu añ joxewuñu reer seen paj lépp sëriñ bi la war te loola ku ne xam na ne liggéeyu état la état moo war a toppatoo éducation ñi fi nekk ndax ay citoyen sénégalais lañ loolu état moo ko war a saytu nerewul ñi ngi tabax waaye nag ñi ngi koy ñaan mu gën a jàpp baax a baax ndax dund bi diis na ndax kenn ku fi nekk ku ne xam ne sa kër ga juróomi nit ya fa nekk dong jox leen dépense dong doy na liggéey borom kër ga ku ne xam na loolu ñëpp yor nañ kër waxuma laa ko yor 3960 étudiants yor leen di leen jox añ leen jox reer di leen jox ndékki di leen faj loolu sëñ Maxtaar di ko def te kenn fayul dara loolu état Sénégal la ko defal kon état Sénégal nañ ko gën a gëstu bu baax naam ñu ngi jàpp waaye nañ gën a jàpp ndax dund bi diis na nañ gën a jàpp baax a baax ñu ngi koy sant nag baax a baax di santit waa Koki ndax ñoom li leen war si daara ji ñu ngi ci ñu ngi jàpp baax a baax waaye loolu rek lañ war a def ndax maam Maxtaar Ndume mi sancoon Koki ki nii la ko sancoon daf ko sancoon ci jàng ak jàngale ñaanoon boromam ñaan naa alxuraan sax dàkk Koki tey képp ku fi ñëw mbooloo mi seere nañu alxuraan sax ndax kokki ndax kokki fu ñu ko déggee fu ñu nee kokki rek ñu ne kokki alxuraan ndax loolee jëmm ji sancoon fii ba mu métti lool sancoon ko ci jàng ak jàngale moom la sama borom fayee lii ba maam ba maam Cheikh Mbaye yabal ci sëñ Ahmad Sakhir Lo mu ñëw fii fekk suñu maam ma debbo mu daggal ko suuf su yaatu jox ko ko ci ndigalu sëñ kokki loolu kokki gépp la ko defal def ko maam Maxtaar Ndume ndax maam Maxtaar Ndume ndonoom mooy alxuraan lii fi sëñ mat saxir loo def bu fekkee defu ko fi woon ñun waa Koki danañ am gàcce bis bu ñu dajeeg sëñ maxtaar du mu jóg ndax maxtaar du mu ba mu sanc booba jàng woon na lool tumuraanke woon na ko jamono yu xat a xat sanc fi daara di fi fi jàngale ba sama borom def mu dem ba jamono daara ji dikkaat ci ndigalu maam Cheikh Mbaye loola dañ koo dañ koo def pour fay ko maam Maxtaan Ndoumé ndax loolu bu amul woon ñun bu ñu dajee Maxtaan Ndoumé dinañ rus waaye loolu lépp it dañ ko sant ndax bu ñu amee lii tey moom la moo tax ñi ngi ñaan fee mu tëdd ñaanal ko sama borom yokk ko ay leeram dolli ko ay martaba bu baax a baax ndax loolu lu jaaru la ci ñun waa Koki ñu def ko ñu seedeel ko ko ndax lii ñun moom lañ ko defal di sant it waa dëkk bi bu baax a baax ndax ñoom li leen war ci daara ji ñu ngi ci dëkk bi kër goo fi dugg lu mu néew néew ci aw ñaqam mu ngi dundal daara ji ndax loolu lu leen war la waaye ñoom it ñi ñuy dimbale tey jii ku dugg si dëkk bi xool dëkk bi gis na dëkk bi donc yi ñu doon jox añ ak boo fi duggee si dëkk bi bari na fi kër yoo xamante ni bi ñañ doon jox añ ak reer tey ñoo yor kër yooyu di leen jox añ ak reer ak ndekki di leen tabaxal di leen yóbbu Makka kon loolu ci barke alxuraan la kon nag waa Koki yéen fay gi leen suñu borom di fay commencé nañu ko woon fii ci fii ci al fii ci àdduna rek fii ci àdduna commencé nañu ko ndax fii ci Koki kër goo fi dugg tey la lañ fay jëfandikoo lépp ay dong yi fi jàngoon si daara ji ñoo koy def kon loola fay googe noonu la sëñ Mat Saxir waxoon ne maa ngi ñaan képp ku mu fi indi fi daara ji ma fay ndeyam